Thioro waxtaanee surtout Covid 19 fii ci Sénégal euh, suñu première dose de vaccin yi tey la ñu koy recevoir. effectivement Bijou xam ngeen ni euh, boobook léegi ñu ngi ci woon quand même euh, di def ay jéego gis ngeen ni ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr dernièrement demoon na visiter fi nga xamante ne fa la ñu war a conserver vaccin yi ak yëpp donc vraiment tout a été toutes les conditions fexe nañ ko réunir pour qu'on parvienne à recevoir les premières doses de Euh, semaine dernière président Macky Sall en conseil des ministres il tenu vraiment à ce que balaa ñuy dem ci mois de mars euh, première dose vaccin yi ñëw donc euh, tey li mu bëggoon kilifa yi ak ñi ngi ciy liggéeyal taxaw nañ ci ba daanaka lépp yemb na première dose vaccin yi dinañ agsi tey ci di heures par aile par air vol Air France astafurlah Air Sénégal. Mhm. ñoom ñoo leen di andi te dinañ ko réceptionné ci aéroport international Blaise Diagne ndax xam ngeen ko ñi ngi doon wax ni dinañu njëkk. dans un premier temps indi lu tolloog euh, deux cent mille ci ay euh, ci ci ci ay doses vaccin yooyu nag ñu répartiroon ana ñan ñooy nekk priorité yi bokk na ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les professionnels de la santé ndax ñoom également ñoo gën a nekk en contact ak maladie te ñu bëri ci ñoom virus bi jot na leen laal donc ñoom dinañ bokk ci ñu ñuy njëkk a vacciné dina ci bokk également ci ñi ñuy njëkk a vacciné ñi nga xamante dañuy dund ak ay pathologie ngir mën leen dimbali xëj na xam naa man ci laa war bokk ndax dama am mm. pathologie. <laughs> Euh, loolu moom ah, foog distance bi ko comprendre pour ñu ko vacciner. Mm, mais dama dégg ñuy wax ni que ku déjà am virus bi il faut nga toog 6 mois avant ñu lay vacciner. Euh, na ay loolu lañ am na am na am na parce que. li ngay jot am coronavirus ñi jot am corona dañuy. boo wér nga toog foog ñu am benn période. Euh, balaa ñu lay mën a vacciner mais boo nekkee porteur sain moom loolu nuñ koy xam. ah loolu xam naa du ñàkk nag médecin yi ñoom dinañu xool Euh, li nga xamante ne lépp moom moo ca parce que euh, jàpp naa ni kilifa yi lépp loo xam ne transparence la ak lu nit ñi war a xam ci vaccin bi ni mu war a demee ah. waaw dinañ ko am loolu laa wax deux cent mille doses rek mooy jotagum donc pratiquement personnel médical bi ak personne a sauver xëj na ak ñiy dund ak pathologie ñoom rek ëpp nañ deux cent mille donc euh, dañuy xool rek par ordre de priorité déjà kon yow ñu doon vacciné plateau bi man dañuy vacciné maa gën a jege troisième waaye man dama am pathologie <laughs> waaye man dama am pathologie bokkuñu. man li ma góoboon ban moo ñëw ban la AstraZeneca bi wala beneen bi. Euh, si moo moom moo moom moo moom moo ñëw. Euh, ci 200000 dollars bu ñu fàtte ni pour le moment ñi ngi doon euh, jàpp ni war nañu jot au moins 1 million 800000 doses de vaccin. donc 200000 bu ñëw bu ñëwagum du dara. ñun on est plus de 14 millions de Sénégalais te ñëpp war nañu vacciné wu mais comme li ñuy wax chaque jour ñëpp seen loxo. dëkk yi nga xamante ne seen loxo jotuñu seen ginnaaw c'est vrai dañuy mën a nekk juste en partenariat ak dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy produire ak yooyu mais même dëkk yi produire dajalaguñu seen ay seen ay seen ay kii donc balaa nga ni naam da nga fay ne xëj na mhm. ñoom dinañ aider mais euh, dañuy aider gum rek ci li ñu mën le temps ñoom itamit ñuy sauver seen ay nit ndax bu ñu fàtte ni fa la coronavirus gën a wulee ñaay bi bijou mhm. en tout cas euh, ñi ngi xaar vaccin yi kañ lañ koy commencé dinañ leen ko suivre su ko defee ñu gën ci waxtaan ak yéen surtout gën a dalal seen xel par rapport ak ki nga xamante ne dañu am ay doute ba léegi. jàpp leen ni c'est le seul moyen de nous protéger efficacement ci coronavirus bi pour le moment en attendant yeneen recherche ak yeneen médicament dañuy rester toujours ci Covid 19 ndax variant bi nga xamante ne moom la ñu tuddee B117 dafa gën a euh, lëmbee àdduna bi xamante moom moo di euh, variant euh, boobule bokk na ci li gën a euh, sonnal fi mu toll nii àdduna wërngal këpp amul fenn foo xamante ne di fa dem te doo ko fa fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay marin pompier yu nekkoon fële ca Marseille ñoom nag niki dimanche la ñu doon amal yenn ci ay seetlu gis nga ko nii ci ay mbir yu bari yoo xamante ne jéem nañu leen xool foo xamante ne ay foyer wu coronavirus bi la ñoom daal li ñu nemmeeku fi mu toll nii mooy b 2017 bi moo nga xam ne ñu ngi ko njëkkee gis foofule ca Angleterre moom moo représenté par exemple ca Irlande 75 pour cent wu cas yi nga xamante ne am nañ ko waaye ci yeneen dëkk Europe yi itamit lu euh, ëpp wala mu tolloog 27 pour cent euh, ci variant euh, boobu la Danemark 30 pour cent Pays-Bas 46 45 pour cent également Portugal donc pratiquement dëkk yu bëri boo ko jëlee ci àdduna bi boobu les virus moom moo fa gën a bëri donc moo tax li nga xamante ne moom moo di coronavirus. virus bi gën a accentué wu mais euh, deuxième vague bi gën a saf gën a gën a gën a metti euh, parce qu'on a l'impression ko souche bii nga xamante ne moom moo di bu euh, bees bi. moom moo gën a mortel moo gën a virulent nga xam ne amoon nañu ko. effectivement moo gën a moo gën a mortel moo gën a metti moo gën a sonle donc pratiquement fi mu toll nii dëkk yépp nga xamante ne moom la ñu moom fa la coronavirus bi nekk virus boobu moom moo fa nekk bijou en tout cas dinañ gën a waxtaanee Covid 19. bi couche bu bees bi parce que tout le temps non non ci ci baal ma rek. leeral sànq ci lu mu doon wax euh, kii bi. AstraZeneca bi mooy finalement ñu ne kii bi moo ñëw. Sinopharma bi moo njëkk ñëw. Sinopharma moo njëkk a ñëw après. 200000 doses yi njëkk yi. moo njëkk a ñëw waaw. waaw ñoom ñoo ma ne ñoom ñoo ñoo njëkk a indi. vaccin moom mooy njëkk a ñëw ba vaccin moom mooy njëkk a ñëw après ñu ne beneen euh, vaccin parce que démb cacophonie certes amoon na ci euh, benn télévision lañ doon la ñu invité woon docteur Mamadou Ndiaye mi ngi ci doon expliqué euh, ñoom parfois xam na dañuy wax ne lii la ba parfois indiwaat yeneen kii mais finalement bii la ñu wax ni mooy. Sinopharm mooy njëkk a ñëw après beneen bi doog a ñëw. en tout cas dinañ ko suivre et puis xool yan résultat lañ ci nar a am bu ñu vacciné personnel médical bi ba pare ak yi nga xamante ne moom la ñu tuddee personnes yi nekk personne à risque risque ñi feebar bi nar a gën a sonnal beneen su euh, judduwaat na mi ngi continuer di sonnal àdduna bi euh, xam ngeen ko virus bi moom dañuy continuer di ko jàng rek. Mhm. parce que tout le temps am na yu bees yoo xam ne dañ ko ci découvrir et li gën a jaaxal nit yi mooy sa capacité à à changer à se métamorphoser à s'adapter à xool nan lay def pour gën a résister ci chaque situation ak chaque pays en tout cas on espère que fii ak at bi di jeex xanaa dina dem. jërëjëf espoir rek la ñuy demee mhm. les scientifiques euh, toi tu t'intéresses beaucoup à ces choses là euh, prévoir oon nañ ko soo xoolee y a dix ans quinze ans euh, phénomène yi am glace yi c'est neewoon nañ dina am xeetu virus ak microbe yoo xam ne bi ñu congelé woon kenn xamul ñaata milliards d'années la te plus ñuy dem plus xeet yooyu commencé di génn temps yi rek ñoo ngi wax xam naa dinaa ci ñëw semaine prochaine grippe aviaire bi on a 780 pélicans yoo xam ne dee nañ fële si euh, Djoudj donc ñuy wax ñuy éviter poulet yooyu donc je pense que l'homme va devoir s'adapter ci li nga xamante ne période je pense que définitivement période sedd dinañ am ay xeetu virus yu bees mais comme yàlla bind nañu nag ñuy adapté wu ci li xew ñu gën a bàyyi xel aussi environnement bi parce que je ne cesse de le bu Netflix mhm. quand tu regardes ça mhm. nga gis nit yi ñuy traquer virus si mhm. pour éviter ko pour éviter mu egsi si àdduna bi euh, bon ils te disent que dernière pandémie bi c'était en 1920 et que ñoom ils savaient que cent ans après beneen pandémie ah, day ñëwaat fallait savoir quelle année année mais <laughs> c'était sûr que dina ñëw. et son temps pile ratewul 2020 la beneen pandémie bi ñëwaat donc. Euh, euh, yoo xam ne la dañ ko war a dundee en même temps euh, ànd ak moom adapté wu xool naka la ñuy def pour génn ci ñu terminer ak ca kii rek dama bëgg a waaw <laughs> non sànq sànq dafa doon wax dafa doon wax lu am solo ci mbirum euh, glace yi nga xamante ni dafa fondre dafa commencé fondre ak récemment li xew ci Pays-Bas dem mm-hmm. démb yaa ngi gis léegi situation bi ni mu nekk biir ci bi ci capitale bi ah

réagir du am benn réaction mhm. mais il suffit que ñu décongelé ko mu nekk en contact ak naaj bi mu nekk catalyseur beneen affaire génn waaw mais c'est des réactions chimiques tout ça waaw toujours rek xam nga borom xam-xam yi ñoom fi mu ne nii ci mbirum virus yeeg loolu peut-être ñi xamul ñooy wax mais def nañ ci benn émission temps yële sax bi mu seeyee tu te souviens am na benn façon épidémie bu fa am ci dëkk yooyu boo xam ne gëj nañ ko ji depuis les années 1900. te euh, c' est avec la font des glaces la dé dekkiwaat parce que carcassu animaux yi dee woon ak xeetu maladie boobu moo ko mm-hmm. indiwaat. Mm-hmm. en tout cas euh, planète bi ñun ñu ngi koy yàq rek. scientifique yee ngi wax rek. waaw laboratoire la moom ay ay virusu laboratoire man mooy laa mun ko gëm moom yëpp ay virusu laboratoire la. mun na nekk virusu laboratoire aussi. ay ay ñoom wooyi possible. xam nga dañ naan ay parfois euh, souche bi vraiment yow doo ko xam. fan la mhm. jógee réellement réellement. Mhm. tu vas pas savoir tu vas pas savoir kan moo nekkoon patient zéro bi. xam nga Covid bi dañ naan la strase. la strase ça existe depuis longtemps. Mhm. depuis très longtemps. y a des pardon ah. y a des recherches qui ont été faites et les résultats sont sortis ça fait pas longtemps qui ont démontré qu'il y a très peu de probabilité que concernant les Covid, c'est un virus de laboratoire. Après, ce sont des recherches qui ont été faites. Mm. Nous, on, on ne peut que supposer, hein, mais on laisse quand même aux scientifiques mm -hmm. de délibérer. C'est vrai que les doutes parfois est là, hein, mhm. parce que souvent on peut, on peut s'imaginer. De tout cas, y a beaucoup de suppositions, beaucoup de théories, beaucoup de lii moo ko waral lee moo ko waral li ñu xam daal mooy nañu moytu pour l' instant raxasu takk masque def gel et puis respecter distanciation sociale. continuer aussi waxtaanee encore Covid 19 ak Coro ak Pays-Bas bi nga xamante ne ñoom couvre-feu bi finalement dañu ko maintenir malgré tout. effectivement parce que euh, ñoom demoon nañu ba dem fi nga xamante ne. Euh, euh, moom moo di euh, ca ab cour d'appel ndax li ñu jàpp rek moo di couvre-feu bi dafa doon xañ li nga xamante ne moom moo di seen liberté d'aller et de venir te loolu dafa bokk ci seen dund kilifa yi nag dañu jëloon juste la décision pour xeex ni nga xamante ne noonu le coronavirus di lawe mais heureusement wala euh, heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres euh, la cour d'appel euh, dafa déclarer que le couvre-feu resterait en vigueur au moins jusqu'à ce une décision soit prise ci appel gouvernement bi nga xamante ne audience bi ñu ngi ko prévoir ni ki euh, mardi donc c'est pour dire que les gens ils sont tellement fatigués ci kaw parce que coronavirus bu taxee ngay traduire sa ay gouvernement <laughs> ci yoon ndax bëgg dem ak ñëw mais non da ngay sonn que da ngay sonn et puis depuis un an ñi ngi ci di dem ak yooyu xamante ne ñoom ñoo ci woon dañu jàpp prison dafa metti boo génnee cocc ngay def ndax euh, quatre murs yu ñu la tëj léegi lii nag dafa mel ni dañu emprisonné nit yëpp te kenn te defuloo dara ñoom nag ñoom benn dette boo yoreel société bi mais ñu tëj la quand même ñoom nag en fait loolu moo leen naqari parce qu'ils disent que euh, couvre-feu bi c'est une violation profonde euh, du droit à la liberté donc loolu moo taxoon ñu dem ci yoon mais fi mu toll nii nag en tout cas yoon waxagul ne na couvre-feu bi dañ jukku dafay continuer en attendant ñu jëmaat audience euh, euh, vendredi euh, pour essayer xam mais kilifa yi ñoom surtout premier ministre bi li mu wax mooy amuñu benn intention tere nit yi dem ak ñëw tout ce qu'il veut c'est vraiment essayer de de de de de gagner cette guerre contre contre la pandémie à coronavirus et puis ñu jàll ci leneen mais instant bi il faut que ñu essayer non seulement sauver des vies mais jéem a sauver itamit ni nga xamante loolu mooy économie ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni àdduna euh, bi yëpp et je pense que euh, ay décisions yu ñuy jël moom c'est pratiquement dans tous les pays du monde maintenant après certains sont pour d'autres sont contre la vie est ainsi faite gis nañ ni Sénégal par exemple bu ñu jëlee woon euh, couvre-feu bi début bi da doon metti les gens n'étaient pas d'accord les enfants étaient dehors et tout d'autres manifestaient d'autres saccagés mais benn fan ñaar après les gens passent à autre chose parce que xam naa ne ku boole feebar liggéeyoo yoroo ak sedd bi di nga tal leneen lu lu dul <laughs> mais dëgg la di donc <laughs> après finalement da ngay mujj da ngay mujj toog mais comme ñun on le dit depuis le début et on le répète ñun ici on a peut-être l'habitude de vivre en famille d'être avec nos parents c'est moins stressant euh, ñoom nag dañu tàmm euh, carrière solo. mais boo dëkkee yow kese sa appartement tout seul pendant le coronavirus c'est enfermé entre quatre murs. seetaan télé xool sa téléphone mu jigi da ngay commencé wax ak sa bopp di da ngay da ngay depuis mois de mars alors moi j'étais depuis mars génn bu ñu génnee kii rek la ñuy dem euh, def euh, course rek ñu bisiwaat te ak ni ñu koy waxee respecter mesures barrières depuis mois de mars mais loolu boo koy toog imaginer moi j'étais en Italie voilà. en, euh, le mois de, de janvier et c'était en pleine zone rouge en zone donc vraiment tu peux rien faire Même si tu veux aller faire les courses, il faut le justifier. C'est une personne par famille qui peut se déplacer pour faire les courses. Les restos sont fermés, les bars sont fermés. Euh, donc il faut attendre vraiment que... Euh, parce que après en Italie, il y a un système des couleurs, donc zone rouge, euh, jaune, jaune orange, orange c'était très compliqué à comprendre. Et donc même pour moi que je venais du Sénégal, nous on ne se rend pas compte, mais on est vraiment chanceux actuellement ici au Sénégal, comment ils ont géré probablement la situation, l'ensemble. Parce qu'on a la possibilité d'avoir une vie sociale, mm -hmm. même si on fait attention, euh, oui, nous oui. tenons compte des gestes barrières et tout. Mais dans d'autres pays, vraiment, c'est compliqué. Il y a, beaucoup tout, même euh, des gens qui souffrent, mm -hmm. qui ont développé des maladies à euh, niveau Mais les, psychologique. Les, les, les psychologues, ils, ils ne les empêchent pas. Il y a, il y a tellement de rendez-vous. Tout le monde va voir un psy ah, actuellement ah, en Europe. que les gens ne se sentent pas bien. Mhm. et li ma gën a métti mooy les gens qui se suicident parce que ils su ils supportent pas au fait de vivre comme ça donc ils préfèrent mettre à leur vie et puis génn ci mu jeex daal. corona par ay waay demal. li awa ngay dem moo tax ñu a sant yàlla góorgóorlu. Hmm. ñu war a sant yàlla. waaw ñun nag donc comme que boo xoolee li xew yeneen dëkk yi ñun yegseeguñu fi yëngu ko. damay naan. <laughs> bu leen bu leen groupe naa ci coro mukk dimbali leen ñu rek. <laughs> masque bi jaxase na sama kii mais foofu ma naan man kay tey amul benn problème lii ma gis nii. <laughs> du ma jël benn risque. mais tey moom xam naa ne ay maquillage yooyu da ngeen ñu koy baal rek xam naa ndax ah, poussière bi yeeg yooyu du yomb. waaye li ñuy naan tamit am na solo de. yii mm-hmm. nii baax na si. Mm-hmm. tool ni kay sax yow ma laa bëgg a passe parole nga wax ma gën a naan gën a jël sama temps ndax dañ cee toqal tuuti mante ñu nekk. gis naa a kay da ngaa sotti mante bi benn goutte la Mado. Eh, parce que kii la maa lay wax les effets dafa fort aux épileptiques. quand même tu fais une formation d'esthétique nga toll ci massage on te dit tout le temps par rapport à ta fiche de renseignement demande d'abord à ton client ou à la cliente est-ce que vous n'êtes pas épileptique. tellement que l'huile essentielle est concentrée sama bos dafa tuur nañ ko pàcce ñett ñett sa bos nga xam ne man mii est-ce que du ngeen ko xelli woon tey. <laughs> waay ci lañ jëm <laughs> ci lañ jëm bii je tey deux cent quatre-vingt-quinze cas au coronavirus. ñaata deux euh, a qui parlaient ci lim de sept cent ak ñi nga xam ne kenn déclaré wu leen chaque jour ñu mhm. annoncé le décès. c'est vrai chaque jour enterrement yi je me demande même. est-ce a les vrais chiffres léegi bàyyil waa Pays-Bas waaye bàyyil bi nan ma euh, passaale Apulaay euh, kii bi vite fait voilà. on a fait deux mille deux mille deux mille cent quatre-vingt-douze tests on se retrouve avec deux cent quatre-vingt-quinze cas yu positifs quatre-vingt-quinze yi ñooy cas contact bi yi je pense que taxaw ci jot na. parce que il y a 200 cas communautaires alors. 200 cas communautaires c' est, c' est beaucoup. c' est et puis tant que am yow mi nekk cas communautaire nga xam ne yow xamoo fu ñu la ko waalee yow tam xamoo ñaata nit nga ko wàll c' est c' est compliqué et tant ñu ngi am chaine bi ci cas communautaire yi dina jafe lool ñu arrêté propagation virus bi. franchement c'est c'est mais dama ne restriction yi ñu defoon au début nga xam ne dama ne soo defee benn action mu marché mën nga ko renouveler mhm. man je je persiste et je suis et tout le temps quand j'ai koy waxaat xale yi ñoom ay vecteurs sains lañ ay ay porteurs mhm. sains lañ mhm. ils sont dans les écoles mhm. yow peut-être tu la chance yóbbu sa école doom boo xam ne dinañ mën a def distanciation sociale mais dans les quartiers populaires dans les quartiers euh, reculés ils n'ont pas ces moyens là xale yaa entassé wu donc tey maam yi euh, ñiy décédé kenn xamul nu mu toll les personnes qui sont malades ñi nga xam dañoo amee xeetu cancer ñu dem hôpital le nombre de décès y man j'ai eu la vidéo hier naa ko ce matin mais nee na ku dem ci cimetière yi chaque jour ñu annoncé la ay décès ay nit ñu mag la ñuy doon wala des personnes suñu la laajee nga xam ne ñu amoon nañ benn pathologie ah euh, cardiaque wala respiratoire si ñoom hmm. je pense qu'il est temps ñu jéem a xool nan la ñu mën a def ak école bi moi j'insiste mais c'est tellement pertinent ce que tu dis Yacine mais xam nga aussi ñoom ñoom quand ils prennent des décisions mënuñu ko jël sur en coup de tête ouais. c'est pas pour rien qu'ils se sont organisés autour d'un comité di laajte toutes les en fait ñoom ils demande des informations balaa ñuy mën a jël ay dogal mm-hmm. aujourd'hui euh, quand par exemple ñi ñuy waxal ci wàllu école yi bu ñu leen waxee ni mm-hmm. par exemple sur euh, dix mille élèves yu école bi am amuñu sax cinquante cas de communica de de de de de coronavirus ils se lu war a tax ñu tëj école yi loolu aussi lenn la te et on peut le leur concéder peut-être man xëj na tey bu ma sañoon sama doom dootul jàngi xëj na yow boo sañoon sa doom du jàngi keneen ak keneen noonu parce que ñun ñëpp euh, limite ñun ne à l'abri mais aujourd'hui bu sa doom jàngiwul itamit yeneen xale yi ñu ngi jàngi non seulement da ngay continuer di fay mais dafay mm-hmm. rater euh, année c'est aux spécialistes d'évaluer la situation d'évaluer la situation même même soo xoolee benchmarking Chine bi ñu sonnee dëgg ci Covid bi dañoo tëj école yi France bi ñu sonnee dañoo tëj cas yi wàcc donc je me dis xale yi xam nga kenn testé wu leen aussi xale mm-hmm. mën na ko yor nii doo xam ne yor na ko mu dem wàllu comme maamam pour man taxaw seetlu la on interpelle pour ñu se bàyyi xel école yeeg université. waaw noonu la gars moom dinañ dinañ évaluer ndaxte déjà ñu ngi ñu ngi ci couvre feu bi transport bi surtout man loolu moo ma gën a ci transport parce que dañuy entassé wu les transports les transports en commun là chaque jour boo leen gisee wala mm. doon bus yi wala dara ñu naan mm. est-ce bu ñu takkee masque ba pare bi non pare loolu sax du problème bi de heure ñibbi bi ci garage nit yi nu muy feesee ak nu ñuy buuxantee ak nu ñëpp di dawandoowee pour ñibbi léeg-léeg ma ne comme la dernière fois reportage bi ñu ci def da ngay dugg ba ci biir oto bi nga dem ba ci biir bu xasee bu dugg ñu dindi te yow mi nga xamante ne yow yaay receveur bi wala yow mi di dawal quand tu leur demandes de euh, takkaat leen seen masque dafay nekk benn conflit boo xamante ne mm-hmm. te am na fooy tollu magum jëmm am na yoo ko wax du ko def donc je pense que mooy li ñu doon wax rek responsabilité individuelle bi ñuy wax ñi ci war conscient parce que yëf yi mi ngi bare te comme li ñuy lim nii ay lim nañuy jot mais ci biir kër yi ci la ëpp y a beaucoup de gens qui sont malades seen cas day aggravé parce qu'ils se disent ils ont la grippe ils se chez eux mhm. bu ñu demee ba ci biir na gaa cas bi gën a ki fekk virus bi nekk ci sa poumon ba développé wu bu ñu la yoboo da ngay nekk ce sera trop tard nga nekk cas ñu ne la que tu avais un truc de ku ci am loo sentir demal ñu defal la test déjà argent bu fekkee ni grippe la nga toog sa kër faju bu fekkee ne mun nañ la faj parce que y a des malades qu'on soigne mhm. nga def sa traitement en une deux semaines macha allah nga génn wér mhm. euh, vaquer à tes occupations mais pour le moment na gars yi transport yi moom xew yi ci xew yi surtout xew yi vraiment il faut aussi man xam naa damay mujj bàyyi point positif parce que xew yi moom dara dara dara te xoolal te xoolal bijou. tu sais pourquoi ma lay wax. mënu ma caa bañ a dem yow. non man dama ci man benn bennal leen ko benn bennal leen ko li leen naqari bëri na mais benn bennal leeralal leen ko coro en fait je pense que je pense que il faut que non mënu ma tabañ a wax xaar leen rek internet euh, yaruñu yéen l'heure cest à tellement il faut que il faut que ngay continuer def point covid bi parce que même bu fekkee nit ñi arrêté wuñ dem xew seetlu naa ne xew yi tamit nit yi bu ñu ñëwee ku nekk da ngay ñëw gisante ki doon xew li dem ñibbi genre les gens na restent plus du ñëpp c'est-à-dire dem sax moo warul am bay gis xew li am réception lañ ma yëgal démb ci période bi on est dans billahi on est dans un pays boo xam ne tant mbir bi dalu la yow doo xam ni mu méttee mais sa yaay feebar ngay daw urgence yëpp ne la fii fees na urgence yi fees na ñi am yeneen maladie yi kenn mënatu leen a recevoir c'est-à-dire ñun ñooy kii la dal man daluma alors que ça n'arrive qu'aux autres alors que c'est en train d'arriver à des gens yoo xamante ne on les tout le monde il faire attention Euh, point Covid bi chaque jour c'est alarmant on ne veut plus de ça donc ñun ñëpp nañ ci jàppandoo xeexandoo coronavirus bi jóge fi wala même bu fi jógewul mu wàññeeku bu baax a baax a baax mënuma caa bañ a dem tamit ñu bàyyi ko rek de du wàññeeku xew yi ni muy am dëj yi nii bàyyi leen mënuma caa bañ a dem dee leen toog bu leen dem am leen fulla ak fayda ngeen def transfert d'argent mhm. ngeen ngeen ngeen ngeen toog ngeen am seen fulla ak seen fayda noppal na leen ci seen ndawtal yi bàyyi leen seen dem yi merci Thioro wax nga Covid ba 10h30